assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yi nuyu jullit ak mbokkam di nuyoo sell di nuyoo bi nga xamte ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la jàngal jullit ñi muy nuyoo bi yërmande di nuyoo barke yu jógee ci yàlla sunu borom subhaanahu tabaraka wa taala ginnaaw sunu nuyoo dañuy delsiwaat ci sunu jataayal yóbbalu ndaw ñi mooy jataayal xam-xam waaye di jataayal fàttalikonte ci li sunu boroom subhaanahu tabaraka wa taala dénk kom niñ ko baaxoo di defee rek ñi ngi nekkoon doon jàngale téere bii ñuy wax jawharun nafis ñu tolloon ci bunt yi doon jàngale lan mooy faratay julli ak yan ak yan la ba mu jeex kon ñi ngi tàbbi ci sunu bindu tey lan mooy sunnaay julli ak ay ngëneelam ak ya ca aju yëpp moo taxam sëriñ bi tàmbali fi ci bunt bi wax ne faslun lii ab bunt la fii sunaniha ci ay sunnaam moom julli walnaati danañu dikke baax daha ginnaaw ba bi xaddi sunani ci lim sunna ya wa bil fadaili ak ngëneel ya binnaat ñun ci woy xasanin way aj rafet min ha bokk na ca ñoom li iqaamatu mooy li wa suuratun ak aw saar talat wow dikk wala wow dana topp fatihatan fatiha maa xiyaamin ànd ak taxawaayam xad sabat gog sax na wa sirra ak yalu wal ak biral kazaaka ni ko noonee xuddaha lima leel wa sami allahu liman xamida ak sami allahu liman xamida wa samiha dégg na allahu yàlla liman ñel ka nga xam te ni ko kon bokk na ci sunnaay julli ba ci njëkk mooy liqaam kon liqaam sunna la su suñu feddali muy sunna su dëgër ndax sunna la goo xam te ni moo gën a dëgër sax nodd ak jàng saar yi nga xam te ni boo jàngee faatixa ba pare saar wa nga cay teg kon saar woowee moom it sunna la kon sagam waxoon nañ la ne la jàng faatixa faata la saar wi ciy tegu sunna la ak taxawaay ba ngay taxaw di jàng saar wa ak barab yi nga xamte ni war nga fa yalu mooy wax ndànk ci biir julli gi nga wax fa ndànk ak barab yi nga xamte ni da nga war a wax ca kaw mooy biral nga wax ci kaw kon yooyu sunna la ak wax gi ngay wax bu dee yow dangay julli yow dong sami allahu liman hamida gi ngay wax ci ginnaaw boo xamee ne jàpp nga say óom bay siggi loolu sunna la wax na la it samiha allahu liman xamida li muy tekki kon yooyu yëpp ay sunna la ci julli bu ne yàlla nag mooy wax ci suuf ndax boo xoolee julli tisbaar ci suuf lañ koy jàng julli tàkkusaan ci suuf lañ koy jàng ak ñaari rakkay gee yu mujj yi ak benn rakkaab timis bu mujj bi kon yooyee la lay wax ne la bu dee danga koo wax ci kaw kon day mel ni def nga eh, bàyyi nga benn sunna bu dee it yi nga xam te ni dañ ko war a wax ci suuf nga wax ko ci kaw bàyyi nga sunna mu ne wa hakaza ni ko noone fa kullu takbirin bépp kabar siwa ma budut ba nga xam te ni xuddima jiitaleef na ko fa sunnatun sunna la ala ittifaqil ulama ci dëppog boroom xam-xam yi wa hakaza ni ko noonee tasahudaani ñaari taaya wal julus ak jotaaya i ibtidaa taxliili jëm ci jeexalab yeeweeku ba mooy jeexalub sëlmalub yeeweeku ba xaalaw wax na ko arrais kilifa ga kon bokk na ci sunnay julli ba tey mooy bépp kaabar booy kàbbar ci biir julli gi bu bu njëkk bañ la waxoon ne la mooy kàbbarub almal moom lañu waxoon ne mooy farata bu dul kàbbar boobu rek kàbbar yi ngay kàbbaraat ci biir yëpp sunna la ak ñaari taaya yi nga xam te da nga koy taaya ci biir julli gi mooy taaya bu njëkk ba ak taaya bu mujj ba it la ak seeni toogaay sunna la taaya bu mujj ba nag na nga yam ca boo toogee ba war a sëlmal boo tàmbalee sëlmal rek kon jotaay ba foofu lay sunna sa di yem sëlmal bi moom farata la waxoon nañ la ko ca farata taqdimuna sunu jiital fatihatan fatiha ala suwar ci saar yoraf def na ko xam sunnatan muy sunna la daa ahli nasar fa ñooñ settantale taslimatun sëlmal saaniyatun ñaareel ba lil muqtadi ñeel kay aji ala imaamihi ca imaam si dollil isaaratan junj misluhu bekku na ci ay kem saalisatun sërmalug ñetteel ba loxu ñeel ko ala man ca nga xam ni nii kaana nekk na fii yasarihi ca càmmoñam faq fu xenceol xencul almalaa mbooloo ma mu ne kon ba tey bokk na ci sunna yi mooy jiital gi ngay jiital faatiha teg ca aw saar loolu sunna la ci misaal nga jiitaloon saar tek ci faatiha boo ko defoon bàyyi nga na kon jiital bi ngay jiital faatiha njëkk a jàng faatiha teg ci aw saar kon loolee sunna la ak sëlmal bi nga xam te nii moom ngay sëlmal ci imaam bu dañ laa jiite bu imaam sëlmalee ba pare yow boo sëlmalee sa wetu ndeyjoor war ngaa sëlmal junj ci imaam waaw nga xam ne da ngay sëlmal sëlmal ndànk ci sa kanam junj ko ci ci sa kanam donte sax jàkkaarloo ak imaam bi waaye na nga ko junj rek ci sa jë fa nga féete rek mu mel ni kon sëlmalub imaam la ak sëlmalub ñetteel ba nga xam te ni da koy sëlmal ci ki nga xam te ni dafa nekk ci sa wetu càmmoñ waaw nga xam ne boo sëlmalee sa sëlmal sëlmal junju imaam nga sëlmal ci sa càmmoñ ka nekk ci sa càmmoñ bu dee am na nag ca julli ga lu toll ni rakka da ngay bàyyi xel ne moom mi nekk sa wetu càmmoñ bu dee am na ci julli gi lu toll ni rakka rek war ngaa sëlmal ci moom sëlmal boobee sunna la sëlmal boobee ngay sëlmal ci moom sëlmal ba sunna la moo tax moom lay wax foofu waaye bu dee amul ca julli gi nag benn rakka nga xam ne kii moom dafa ñëw rek fekk ñu julli ba pare bon boobaa du jara sëlmal ca moom waxut da ak ngay lim min sunaniha bokk na ci sunna yaa bi yow sama àndaloo aljahra biral al aydan ba tey bisalaam ci sëlmal ba alwaajib ba aji war wa hakaza naka noone salaatuna sunu julli xala rasul ci yonente bi salla yàlla na dool tedd alayhi ci moom man ka nga xam te nii lahu ñeel na ko axtaa maye na alwusul àgg mu nekkat bokk na ci sunna yow tey biral gi ngay biral ci sëlmal ba booy sëlmal wax asalaamualeykum ca kaw wax googee nga koy wax ci kaw sunna la ak julli gi ngay julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci sa taaye bu mujj waaw loolu tamit la taaye bu mujj bi boo demee nga xam taaye nga sa googu ngay julli ci yonente bi sunna la anaytu li ma jublu fii tasaxudil axiri mu ngi noonu ci taaye bu mujj ba wa sajdatul anfi ak sujootu bakkan alal mashuur ca lañ siiwal wal kaffi ak tenq ya war rukkubati ak bëti oom ya atraafil xadami ak ndëg catu ndëggal tànk la wa suturatun ak saatir li xayri maamu min ñeel kudul maamu ya um goog dana matale wala ya um goog dana mottali kon nag mu waxaat ne kon comme la waxoon léegi ci sëlmal bu ci taaya bu mujj ba moo tax muy wax ci julli ci yonent bi moom lay wax noonu mu ne kon nag li ma ci jublu mooy taaya bu mujj ba booy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci taaya bu mujj ba sunna la kon taaya bu njëkk bi moom da ngay taaya rek bu taaya bi jeexee fa la yam taaya bu mujj ba nag ci la julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam am loolee nag la wax ne sunna la ak sujjóot yi ngay sujjóot sujjóot moom mooy sujjóot ci jëf kon sujjóot bi ngay sujjóot teg sa bakkan bi ak teg say tenq sa loxo ak say bëti oom ak sa ndëggu tànke kon yooyee ay sunna la ak saatir bi ngay wut bu dee yow dangay ngay julli yow dong nga wut satir wala bu dee imaam day julli mu wut satir bu dee yow mi ñuy jiite nag nga xam ne da am imaam imam ba mooy nekk sa satir maanaam ku jaar sa kanam du wàññi dara parce que imaam ba moo nekk sa satir kon ki nga xam te ni dafa am ku koy jiite ka koy jiite rek moo am solo ci moom si satire kon keneen ku ñëwaat jaar ci kanamam du ko wàññi dara ndax imaam ba mooy satire ba moo tax mu ne bu dee kiy jiite wala ki ñuy jiite ki nga xam te ni moom day jiite moom moo koy wut kon ñi muy jiite ñooñ moom mooy seen satire moom mii imaam bi ah nii jublu bii ci moom alfaza mooy kenn maanaam imaam mi ànd ak imaam aqalluhaa gën jaa néew duri xameef na ko lalal axlaami fa xaalal ya xilaasu ramxel xuudi muy dëgëru xeetu bant ma tuluuxi siraaxi ànd ak guddaayub xasab xayra mu was wisin du nekk luy jax-jaxal mu daa man wala muy aji tamuy aji set wala tamuy aji sax mu daa man tamuy sax za naxa te muy aji set añuy watul mu nekkat lim ci jublu ci satir boobu mooy bu dee kenn rek mooy julli war naa wut lu mu teg ci kanamam mu nekk ab satiram nga xam ne ku jaar ci kanamam du am baakaar kooku du am baakaar moo xam dafa nekk dafa fekk ab miir bu taxaw mu taxaw ci kanam miir ba julli wala mu nekk ab oto bu mu gaaree nga xam ne leer na ko bii du fi jógee te mu julli ba pare wala moom mu gaaree oto ba loolu mën naa nekk ab satiram wala mu wut loo xam te nii kat doonte nekkut yooyu yëpp mat na lu toll ni xasab xasab mooy la tàmbalee ci cati baaraam yi ba ci ci ab loxo cati baaraam loxo yi ba ca conc la lu toll noonu daal la war a doon ci guddaay war naa nekk tamit lu dëgër lu lu xam te ni tamit day set nga te tamit mu nekk loo xam te ni boo ko tegee sa kanam du jax-jaxal sab gis maanaam mu nekk loo xam te danga koy teg sa kanam mu am ay melokaan yoo xam ne danga fay nekk di ko xool di jax-jaxal sa xol déedéet kon dafa war a nekk lu set tol ni guddaayu xasab mooy la tàmbalee ca conc la ba ci cati baaraam ya daal di nekk wante it bu dëgër boo boo ko tegee du gaaw a daanu wala du daanu loolu it lu ci am solo la te nekk tamit lu set loo xam te ni te mu nekk tamit loo xam te ni du jax jaxal sab sab sab du jax jaxal sab gis kon loolee mooy satir satir nag bu dee kenn yow dongu yaay julli yaa koy wut bu dee imam moo lay jiite imam ba mooy wut satir kon loolu noonu lañ koy doxalee kon loolu tamit sunna la ci kon day mel ni foofu la yamale sunna yi kon loolee mooy sunna yi julli farata yi daal lépp loo xam da cee tegu te bokkut ak farata yi ci ginnaaw sunna yi ngëne li door a ñëw kon sunna yi fii la yam kon yooyu mu lim mooy sunna yi julli kon insha allah rabbi suñu jataay yi di ñëw ñuy yegg ci lan mooy ngëneelal julli ya kon ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu dégg ak topp suñu borom màngal ñu suñuy jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy bàkkaar te may ñu mujj gu rafet defal ñu xéwal yu bari te barkeel defal ñu saxaadatu daarayni xol yu sell yuy taataan ci leeru yàlla ñi ngi ñaan ñëpp képp kuy teewlu jotaay bi suñu borom defal la yërmandeem ak ak njéggalam barkab Seyxuna Ahmadul Xadim in uriidu ilal islaah ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh